yéen nag booy da ngeen doon làmb yéen ngi doog a daj yéen doon làmbaatu yéen a ngi doog a daj laa ngeen laalaake yéen booy mouvement hip hop bi yëpp lay attaqué yéen ñëpp kenn par kenn pour ne man faalewu ma leen lay attaqué par kenn par kenn li ma gën a metti bokk na ci démb ci guddi ak tey nit kii bu la tooñee da ngay xool kilifaam nga woo ko kalaame ko kilifaam man woo naa ñi ma yaakaar ne ñooy kilifa rab parce que rab amul pas rab moom gisoo rapport bi fii rab ba nekk pas moom loolu amul moom rab moom boo amee ay 40 ans ci ngay arrêté moom mbaa booy dinañ la classe classe classe eh, waaw woo naa MC Lida mooy mooy ki ki doon way ak lan ak lan nga bëgg su ma neexee ma añee fii suba ma réeree New York xam naa réeri bi ak temps vol beeg yooyu muy nelaw fay portable am moom boîte vocale laa jot moom man man boîte vocale laa jot mënu ma ko jot ok. woo naa DJ Awadi mon agence de communication la yorfi agence de communication agence euh, euh, bi nga xamni moy agence Sankara euh, moom la yor ma wo diko expliquer lima dib def ak mouvement hip hop bi moy propose proposer ay publicité bay fay prix moom ma ko yow tu n'as rien compris woo naa ba woo Alaaji Maan Alaaji Maan moom ma nga ci événementiel yi naan ma ay alaaji maan a ngi fecc benn tànk tey te xaw ma temps yi tànk bi xaw ma lan mënatu taxaw jëm na mag ñaari tànk yooyu yëpp ma ne ko maan sama yoon néew ci euh, xaaral ma woo naa ko moo fi woon sama yaay nag ma baal sama ak njureel moo ko ma woo ko mu may expliqué El Hadj Keita 24 bi Grand Théâtre ah ok ah woo naa dijjee dëggati xaw ma dijjee dëggati xaw ma woo naa ko expliqué ko cas mu naa ma del daaw dela cooya de <laughs> waaw <laughs> ndeysaan ok comme rab bi moom euh, amul kilifa rab bi moom kilifa yi ku nekk sa bopp kilifa yi bi ok ma ne nag lii dama koy jël en main mënuma xuloog rappeurs yi mënuma xeex ak ñoom mënuma dara mais dama leen di ruubee dama leen di jaxasante ñoom seen biir ndax Samba Peuzzi du laaleeg One Lyrical ak ndax moog dib ñoo far ok Ngaaka Omzo Dollar ak euh, euh, euh, ak One Lyrical ñoom ñoo fa di attaqué ñoom dib ñoom waa Akhlou Brick ñoom maa leen doon dégg ñoom ay dib ñoom da ànd mais ñoom déggaguma leen vraiment mais son bii ma dégg man dib di ko waaj a génne classe dix mille problème ak dof nday ak nit dof nga xam ni mooy borom le vingt borom show of the year son bi man man duma fekk man son bi duma fekk te parce que hip hop nak clashante lañ ci xam mais son bi dip wara génné mercredi bu génné son bi mu wara a clash dof nday clash ci 10000 problème ak nit dof son bobu bu génné parce que man amna ci tuti écho son bi duma fekk man fi ma tok fi di wax dip nak da nga don lamb yaangi man balna la sama leel bek sama bobu amul karaw rappeur yi fay ni karaw ak ababi ababi graw balna la mais tooñ weesuwul son bi nga war a génn te son bi day génn ah. Dof Nday yaa dix mille problème ak nit dof laa ni son bii mënoo leen ko tere génn parce que enregistré na ko ba pare xanaa sama wax ji arrière loo ko mais dina xaw a arrière xam naa pour son bi mais pour ngeen seen information yow Dof Nday dix mille problème ak nit dof dib mu ngi studio moog waa reptile yi di génne son bi nga xam ni yéen la ci attaqué dib ni mu nekkee da ngeen ko cee bàyyi yéen rappeurs yi di yéen a ci bàyyi dib ci ni nekkee ni yéen trop c'est trop bu ngeen ci waxul trop c'est